ma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 bu baax a baax rek ba lim bëgg a liggéeyal xaadimu rasul mu mën ko koo liggéeyal te nu ànd moom bi jaay sayna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama naa di soññ sama bopp rek waaye tamit di soññ mbokk yépp rek ci liggéey bu sell bu am solo bi nga xam ne bii eh, yàlla dañu ko baaxee defal nu ci tawfiq ñu gën cee góor góorgóorlu bu baax a baax rek gën koo bàyyi xel gën ci def ay yitte te xam ne tawféex la joo xam ne ci yàlla moo nu ko defal euh, mu am solo lool kon daal jigéen ñi ci nekk muy soxna yi ak góor ñi ci nekk yépp lañu xam ne daal liggéeyal sëñ bi la te liggéeyal sëñ bi moom yëmut ak dara kon luñ ci góorgóorlu rek ngir liggéey bi gën a ñoŋ gën a sell gën a yaatu gën a bari rek maanaam loola doyut ndax loolu ay ngëneel rek lay doon ci ñun àdduna ak alaxira kon yal nañ ci yàlla gën a jàppale loolu lañ cee defal tawfiix te Moodu Ngom mi nga xam ne niit moo sos liggéey bi eh, ñu di ko ñaanal rek yàlla gën koo dëgëral gën koo jàppale gën koo ubbil am xelam waaye tamit gën koo jàppale ci liggéey ba Euh, ni mu bëgg mu yaatoo rek ni bëgg mu toll ni rek fi bëgg mu àgg fa rek yàlla jàppale ko ci defal ko ci lu koy njortam ndax euh, liggéeyal islaam la ndax euh, doomu aadama moom fii nu nekk ci kaw suuf moom lu waay def ci lu baax mu neex yàlla liggéeyal islaam la lu nit wax wala maanaam lu nit wax ci kaw suuf te mu nekk loo xam ne lii lu neex yàlla la loola liggéeyal islaam la kon daal euh, jaamu yàlla moom moom rek lañu yàlla sant fii ci kaw suuf nu war caa góorgóorlu te yenu lislaam teg ñu war koy jaamoo yàlla itam lépp lu baax rek ci ay wax ak ay jëf maanaam dafa dëxañu ci biir du ci biir nga xam ne suñ ko ci boolee rek euh, dañuy gën a dafa yokk suñu tawfeex bu baax a baax kon daal liggéey mu mel nii yàlla defal nu tawfiix da doon doy sëkk rek maanaam ñu mën cee góorgóorlu ci jëmm ji nga xam ne ji moo ci nekk te gën nu cee farlu fuuf muy kilifa gi di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kooku rek bu nu xoolee ci moom wax dëgg yàlla fi mu toll ci euh, xaadimu rasul maanaam ni mu bokkee foofu ak ni mu dooni kilifa ak ni mu xate Euh, lépp loo xam ne gis nanga ma nga ca biir ne ca di ca yëngu def ca yitteem loola mbokk yi war nañ caa jàngate bu bare bare xam ne fii kat euh, fi la maanaam daraa ngi fi ndax nag ñoom ay jëmm nañu yoo xam ne yi moom yàlla melal na leen loo xam ne noo xam ne lépp loo xam ne gis nañ ñu koy yëngu nekk ca bu doon seen yitte rek nañu xam ne loola moom lu yittewu la lu am solo la ndax euh, ñoom liggéeyal xaadim nasu rek maanaam mooy seen warteef ca la ñuy nekk kon daal kon sang bi yal na ko yàlla gën a yàgg suñ kanam te dooli koo defal tawfiya te mu nekk suñu royuwaay ci lépp lu mën a góorgóorlu ci liggéey bi rek ñu gën cee góorlu te xam ne euh, sunu tawfiya rek la àdduna ak alaxira yal nañ ci yàlla doole jàppale bi jéyee sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey fatwa bi ñu ciy dellu si rek ci kàttan ak yàlla ak ndimbalam dellu di sant yàlla bu baax a baax subhanahu wa taala euh, ba tey di ci soññ rek sama bopp ak mbokk yëpp rek xam ne euh, émission bi dafa am solo lool ci ñun ñëpp dañ ci jànge dañ ciy jëriñoo kon moom itam lu nu xamul ci suñu diine rek dañu jéemal loola ñu gëstu ko fexe koo xam ndax jéem dañuy jaamu yàlla te jaamu yàlla moom dañ ko teg ci ay yoon yu wér wér yoo xam ni ca lan war di dox te dafay aram ci mu kàllaf mi mooy ki ñu togg jëf mu nekk ab jullit léegi war di jaamu yàlla dañoo araamal ci moom muy def jenn jëf yoo xam ne ji xamut lan la ca charia atte jëm loolu moom moo nekk ci liggéey bi ci jaamu yàlla gi kon dana war a góorgóorlu rek lépp loo xam ne lu nu lënt la ci suñu diine rek maanaam loola nu jéem ko gëstu xam ko ci bu dene dañuy yër téere yi ñu xool ko fa waaye itam bu ñu gisee koo xam ne yaakaar nañ ne euh, lii nu lënt kat moom xam na ko loola ñu laaj ko ko ndaxte ni nu ko seydna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalal mooy ad diinu an nasihatu ne diine moom laayante biir la laayante biir nag ci jullit moom mooy la ca war a jiitu mooy euh, lépp lu nu lënt ci suñu diine rek maanaam loola nu jéem koo xam jéem gi xam nag moom ci anam yu yaatu yaatu la wax dëgg yàlla yoo xam ne yi war naa mën a jàppandi lool ndax euh, téere yaa ngi fi wax dëgg yàlla macha allah borom xam-xam bind nañ ci lépp waaye tamit euh, yi ñuy mën a gëstoo léegi ci wàllu machine yooyu yëpp wax dëgg yi yooyu itam tabarkala macha allah mënees na ci xamee lu nu lënd ci suñu diine waaye itam mën nañ cee xamle itam lu nu lënd ci suñu diine mu doon ak laayante biir kon laaj yi ñëw tey rek mu ngi jóge ci suñu jëwriñ ji sëriñ Mbay Jaañ ñoo koy nii bu baax namm nañ ko gëj nañ koo dégg waaye moom xam nañ ne borom baax la euh, borom yitte la itam borom yitte la macha allah kon yal na yàlla doole tawfeex bu baax a baax ba sew xadim léegi moom dafay laaj laajam bu njëkk muy lu jëm ci euh, ak julli la maanaam waxtu julli comme ni ñu ko xamee nga xam ne moom la ñu ñuy jàngal fi ko jàngal muy waxtu julli dafa am ay waxtu yoo xam ne yii. dañ koy mën a def ñaari xaaj maanaam am na ci yoo xam ni maanaam ñaari waxtu la doon muy almuxtaaru wa daruri dañu ne julli da am julli yoo xam ni dañuy am waxtu muxtaar muxtaar mooy waxtu wooñ tànn waxtu wi ñu gën a tàmm nag tànn ci julli mooy julli ku nekk dafa am waxtu su waxtu woowee jotee rek maanaam nga góor góorgóorlu ba jaal benn waxtu wa nga joxe ca julli ga waxtu woowu la ñuy wax euh, al muxtaar ad darurit mooy day doon waxtu woo xam ne bii dañ ne kat julli sàngam gii kat mi ngi tàmbalee ci waxtu sàngam maanaam muxtaaram ba ci waxtu sàngam bu àggee foofee nag léegi lañ naan léegi muxtaar ma dem na waaye daruri bi moo ci topp daruri bi tey maanaam liñ ko mën a xaajale ak muxtaar rek mooy boo julli woon ci muxtaar mi daal mooy ëpp yool ci yow mooy gën itam te mooy doon li nga xam ne it moom lañ la sant ci boo julli woon ci daruri bi terewut it yépp a baax moom waaye tamit boo dee ba muxtaar jeex daruri jeex du tere léegi julli googu da nga ko war a julli bu boobaa eh, xam naa dina ñëw ci laajam muy da ngay fay léegi julli ga waaye loolu it dinañ defal leeral insha allahu waaye daal ala kulli xaal li nu war daal ñu xam ko mooy li yàlla wax ne mooy a salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquutan nanu xam ne julli moom warul jee am sagooy waxtu wu nu neex rek ñu def ko julli danoo war a fexey saa su waxtu wi ju dëgmal jege lépp lu nu nekkan rek ci yittey adduna yi ñu bàyyi ko te waajal julli googa bu julli ga jàll ñu doog dellu ci yitte yooyee kon loolu nga xam na lii moo nu war ci suñu digganteek julli mooy nu fexe di ko def ca bu waxtu wa jotee ndax loolu la yàlla wax loo tax Cheikhul Xadim nafaana laahu bi barakaatihi dañu ca soññ ci ay anam yu baree bare bari mu am fu mu wax ne kuunu ila salaati naahidiina li awwalil awqaati aajilina sanga xam ne ne yéen mbokki jullit yi yéen sama taalibe yi na góor góorlu ba saa bu waxtu julli jorati ngeen buur jëm ca waxtu julli wa waajal ko balaa julli gaa jot mooy kuunu ila salaati naahidiina li awwalil awqaat li awwalil awqaat gis nga mooy waxtu muxtaar moomu ñuy wax ne na ngeen góorgóorlu ba ca njaal benn waxtu wa ngeen daal di waajal julli ba bu su waxtu wa jotee rek maanaam ngeen daal di mën a julli ji te julli dafa am solo am solo goo xam ne gii Cheikhul Xadim moom mosu koo faye mosu koo caaxaane mosu koo oyofal da koo fonkan lool lool lool ndax am na fu muy waxit ne bi muy sanc dëkkam boobu di tubaa Mbàkke al mahruusa ci téeréem boobu ñu wax matlabul fawzayni dañu gën koo miine ci làkkab tubaa ma fay wax naa wal tuthbitan fiihi jamaatan tuqiim assalawaatil xamsa dëban yaa xakim bi muy sanc tubaa dafa bokk ci lim doon ñaan ci dëkkab tubaabee mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan dëkk bii nga may sanc nga saxal ma fi mbooloo moo xam ne nii fu waxtu julli jote rek maanaam mbooloo moom dinañ bàyyi lépp luñ doon def daal di ñëw joxe waxtu woowu nga saxalal ma ko ci sama dëkk bi kon loolu dafa bokk ci fonk boo xam ne bii fonkoon na ko julli waaye tamit di soññe ci julli bu jotee waxtu woowu nga xam ne moom la ñuy wax muxtaar daal balaa jeex maanaam nu fexe ba julli ko foofu waaye gis nga ni yàlla nangoo ñaanam googu itam yaakaar naa ku dem Touba xam Touba lañuy dund euh, bu waxtu julli jotee balaa waxtu way jot masala nañ cay teel a euh, soñña ci wàllu noddu ya waaye tamit daanaka jàkka joo fa dem ak juma joo dem euh, da nga fekk mbooloo moo xam ne mu takko takku maanaam juma ju mag ji nga xam ne ji mooy juma yam ji moom defe naa saa boo jullee waxtu moom di nga xam ne ñaan kooku mu doon ñaan Eh, yàlla nu wala ko bu baax a baax tey julli dafa nekk lu am solo loo xam ne lii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ne mooy li nga xam ne lii moom lañuy ñu jëkk laaj ab jaam ci bàmmeelam suñ ko ko laajee su julli yooyu jàllee maanaam bu baaxee yeneen jëfe ca des yëpp ci foofu lañ koy attee waaye tamit bu ñu xoolee ne kii kat ku sàggane woon julli la wala daw julli sax rawatina nag su boobaa it gis ne ay mbiram daal jàll xaw naa jagati yàlla nañ ci yàlla musal bu ko defee it ay jëfam la ci des yëpp foofu lañ koy attee te dafa waxaat it moom sallallahu alayhi wa sallam ne asalaatu eh, ahamu arkaanil islaamin ahamu arkaanil islaami fa man aqaamaha faqad aqaama wa man tarakaha faqad hadama diina ne ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa julli moom fonk lislaam yi yëpp jullee ci gën am solo képp ku ko fonk di ko taxawal eh, mel na ni maanaam fonk lislaam yi yëpp koy taxawal waaye tamit ku ko sàggane it eh, mel na ni fonk lislaam yëpp nga sàggane kon daal julli moomu yal nañ ci yàlla defal tawfeex ba ñu man di góorgóorlu ba noonu yàlla wax ne man maa ko sàkkal ay waxtu su waxtu yooyu jotatee nu daal di bàyyi léppi àdduna te dem julli ji ba waxtu wa ba julli ga jàll mooy li nga xam ne bii mooy sunu wërteef waaye yéex ak julli lu dul lu wër loo xam ne lii charia ma lu nga na loolu moom duñ ko may ab jullit kon luñ ko mën a moytu rek dañ ko moytu suñu kéemtalaay kattan te xam ne mooy li nga xam ne lii loolu kon mbokk yi nu ñëw ci laajab laaj Serigne Mbaye Diagne yu am solo yooyu rek tàmbaleeg ci rek xam na waxtu julli yi dañ ne euh, waqtu subhi min saadixil fajri ilal isfaar wa waxtu zuhri min zawali shamsi li aaxiril qaamati wa waqtul asri min tamaamil xaamati ila asfiraari shamsi wa waxtu maghribi min ghurubi shamsi ila maghribi shafaq wa waqtul ishaa'i min maghribi shafaq li thuluthil awwali min al-layl mbokk yi waxtu julli bu dee waxtu suba la euh, jullik suba waxtoom muxtaaram te wenn waxtu woowu la mooy ne su fajar gi jotee sëkk sëkk foofu la tàmbalee ba kere ñu dem ba guddi gi jeex ba leer jant bi commencé di leeral su boobaa foofu la waxtu julli wi nga xam ne wii mooy muxtaaram foofu la yem maanaam fi jant bi di waaja fenke daal nga xam ne soo génnee rek dangay gis ne jaw ji fi mu ne leer na naññ léegi jant bi fenk waaw kon waxtu suba mi ngi tàmbalee ci fajar googu su fajar jotee dañ koy xayma nag di ko takk ci ay heures yoo xam ne yii bu jotee ñu xam ne fii la fajar ji tàmbalee maanaam foofu la waxtu suba bi di tàmbalee bu dee ni jullik tisbaar la jullik tisbaar itam waxtoow muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rësati maanaam ëpp ci saw maanaam saa bu jant bi buñ ko xoolee gis na léegi ci saw la ëpp rek foofu la waxtu euh, tisbaar tàmbali yi nga xam ne yow mooy muxtaar mi waaw muxtaar moomu nag ne ne day continuer di dem ba boo xoolee sab takkandeer maanaam yokku na ba fi nga xam ne bii fi la takkandeer mën a yem maanaam muxtaaram tisbaar mu ngi tàmbalee ci foofu jant bi ëpp ci sawu nga xam ne bu jant bi gën di dem xam ne eh, takk yi day yokku di dem waaye day dem ba takk day jeex maanaam dootul mën a yokk foo gisee ne nag lii takk bi yokkootul rek maanaam waxtu tisbaar wow muxtaar foofa la yem su ko defee waxtu tisbaar wi ñuy wax daruur yi muy ñaareelu waxtu bi moom day continuer ba euh, ànd ak euh, muxtaaram jullik takkusaan ba keroog jant bi di sox maanaam darurim tisbaar euh, day tàmbali ànd ak muxtaaram jullik takkusaan ba keroog jant bi di waaja sox su ko defee bu dee waxtu takkusaan la moom itam gis nga ne naa ne day tàmbale ci foofu nga xam ne takk ndeer bi dem na ba fi mu mën a yem foofu la muxtaaram jullit tàkkusaan tàmbale continuer ànd ak daruréem clé euh, daruréem jullit tisbaar ga ba kere jant bi di waaj a so ñaar kon seen darur yi boobu day ànd ba kere jant bi di so bu dee jullit timis la itam waxtu muxtaaram moom moo ci gën a gàtt ndax moom fi jant bi soy rek foofu la muxtaar mi tàmbalee waaye boo xoolee ci saw bi gis ne ceeneeri jant boobu fi desan ginnaaw bi jant bi soyee ceeneer yooyu gisatoo ci dara boobaa moom muxtaaram euh, timis jeex na waaye itam moom itam foofu la darurim tàmbalee di continuer ba kera fajar di jot da koy ànd waxtu gee bu dee waxtu gee la itam moom itam mu ngi tàmbalee foofu nga xam ne fii fi la muxtaaram timis ma jeexawoon te mooy bi ceeneeri jant bi ginnaaw bi mu sooyee suux na gisatoo ko foofu la muxtaaram gee tàmbalee ba ca boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi maanaam mooy muxtaaram isha muxtaaram julli gee foofu la yem waaye day continuer dugg ci darurim ba fajar googu jot kon daal yi mooy waxtu yi nga xam ne yii waxtu ci nekk lii mooy muxtaaram waaye lii mooy daruuriim kon mbokk yi laajub sëñ bay Jaañ boobu mu ngi ci laaj ne dafa am ñu ne ki nga xam ne kii day julli waxtu wi teew bu fekkee dafa yéene fay julli gi day yàqu bu baax walla mu war a fay yéene joxe waxtu wi ba tey julli gi du baax waaw loolu de lañ ko ci tontu mooy euh, mooy xukmu niyati ada isalaati liman yaqub yi aw niyatul xodaa yi liman yu addi ñu ne jàngal fiqh dañ noo tegal àtteeb ki nga xam ne kii julli daa jot mu di ko julli ci waxtoom euh, yéene ko yéene ko yéene ca fas ca yéene ak pay maanaam fay ne day day fay ak ki nga xam ne kii dafa war a fay julli da ko war a mu war koo fay mu yéene ne da koy joxe loolu daal ñun li ñuy jàngal fiq ñi ñuy jàngal fiq lañ ñu ca wax mooy la yushtaratu fi lxaadirati niyatil niyatul adaay kama laa yushtaratu fi lfaitati ñëwetul xodaay li ñu jàngal fiqh daal li ñu jàngal ñun mooy euh, amut charte ci ne booy julli julli gi teew faw da nga koy yéene da fas yéene joxe ko waaye tamit nee nañu amul benn charte ci ne booy feeg julli it da war a yéene fay ñoom daal li ñu wax mooy da joxe julli gi yéene ca ne fay la wala da koy fay yéene ci la ne dama koy joxe ne nañ loolu maanaam du jeextal julli gi maanaam du jeextal julli gi nag mooy du ko yàq maanaam du ca charte daal daa di wax ne fa man nasiya salaatan aw naama anha xata xaraja waqtuha fa tazakkuruha huwa waxtu adaayiha ñoom li ñu wax rek ngir ñu xam ne loolu moom du yàq ci julli gi dara boo ko safaanee noonu dañ ne koo xam ne kii dafa fàtte julli wala mu nelaw ba waxtu julli wa wees ne ne bu boobaa waxtu woowu nga ko fàttalikoo jóg waajal waxtu wi di ko julli ne ne jamono jooju nga def loolu mooy waxtu julli googu mooy waxtu julli googu kon loo tax ñu ne ñu sartal ci ne julli gi daal la koy joxe ci waxtoom da fas joxe wala julli gi da koy fay kon danga war a fas fay boo dégg nag li mu wax fii ci ne ki julli raw ba waxtu wa génn ne jamono jëm ko fatle ko gën a julli waxtu ko fatle ko mooy waxtoom kon boo delloo fee lee mu la waxan ca ñaaree kon du ca charte tey du jeex te julli mooy du ko yàq kon daal ñu ñoom loolu lañ ñu jàngal kon daal bu ñu ko doon tënk rek naan ñaar yooyu daal eh, boo ci defit du tax julli ga yàqu tey dafa def ne dafa ne dahabal fuqaha fil jumlati ila annahu la yushtaratu tahdidul adaa'i awil qadaa'i fi niyati salaat ida ayana salaata allati yuaddiha yuaddiha saxa nawal adaa awil qabaa dégg nga fii dafay wax ne ñi ñu jàngal fiq ñëpp la wax nag génnew ci kenn la wax nee na ñoom ñëpp d'accord dañ ne dee sut sartal ne euh, faw may joxe julli ci waxtu wa damay fas ne dama ko joxe wala boo ko defut julli ko du baax wala nga ne faw bu may fay damay fas ne damay fay julli ga wala boo ko defut bu baax ne ne loolu ñoom ñëpp jàkk d'accord na ci ne loolu ne du du ca charte du charte ne ne li ñu bëgg daal mooy julli googu nga joxe ci waxtu wa wala danga koy fay moom na nga ràññalee gan julli la soo ko ràññee bu dee ni waxtu walla muxtaar ma nga di ko joxe yéene ci maanaam ne maa ngi julli maa ngi doxe julli gi bu dee ni daruuri rek nga yéene ci ne waxtu sàngam wi daal moom laay julli loolu la ñu wax ñoom loolu nag bañ ko waxee lañ ca tegan mooy julli ga wér na moo xam nawal adaa awil xobaa moo xam da ca yéene ne da koy joxe wala da koy fey masalan liñ bëgg daal mooy bu dee tisbaar ngay julli nga yéene julli tisbaar nga xam ne xam ne tisbaar nga julli mu nekk ci sam xel waaye war a julli tisbaar wala nga war koo fay daal am yéene julli takkusaan la loolu moom mooy yàq julli ga waxtu wi teew nga war koo julli moo xam danga ko joxe ca waxtu woowu wala nga di ko fay maanaam mu di waxtu tisbaar nga yéene ca nga fas ca ne julli takkusaan la loolu moom day yàq julli ga loolu moo tax mu ne la fa laazimu niyatu fi'li salaati adaan aw xaba ñoom ñi jàngale fiqh daal nenañ li war daal nga war a sàmmonteeg moom mooy amal pas-pasam ne julli gi daal dama koo yéene def dama ko yéene def adaan aw xabaan moo xam jamono ji ci muxtaar mi la wala boo koy fay waaye boo ràññalee julli gi sàngam la dama ko fas a julli bu boobaa nga julli ga jàll na waaye ñaar yee ne du ca charte du jeextal ca julli ga dara beneen laajam bi ci topp moom sëñ bay Diagne dafay wax maa xukumu bawlil xayawaanaat tey laaj lan mooy atteeb sawam jur gi nga xam ne gii maanaam jur gi maanaam sawam ak jur jur gi seenam saw lan moo di atteem maanaam dafa laab wala sobe la ñu ne alxayawaanu lazi laa yukalu laxmuhu fa bawluhu najisun inda kaafatil ulama boroom xam-xam yépp ci li nu gisagun ci ñu nu koy jàngal ci fiqh ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne jur gi nga xam ne gii deesul lekk seeru yàpp ne ne seenam saw dafa sobe kon loolu moom bu dee ci wàllu sobe gi la ne ne jur gi ñu dut lekk seeru yàpp jur gi nga xam ne gi ñun jullit dañ noo tere ñu lekk ko ne jur googu bu ñu sawee saw moomu sobe lay doon lu mel ni kal ximaar wal baxli wal kalbi wal qitti fa hadihi najisatun yuziluha min athabi wal badan lu mel ni mbaam am sawam sobe la al baxl mooy berkelle am sawam sobe la kon al kalbu mu di dawkat muy ab xaj am sawam sobe la alxëttu itam ne na am sawam sobe la ne na kon yii ku mu taq ci saw yaram wala mu taq ci sa yére danga ko war a dindi euh, bu fekkee ni euh, laal na la bu la laalee ñii ma ak limal ak yéppi bay yi nga xam ni ñu lekk seenu yàpp daal seenam saw bu la laalee ne na bu dee ci yére yi la ko war a raxas fóot ko mu dañ waaye bu dee ci saw yaram la it da nga ko war a euh, dindi wa iza kaana mimma yukalu laxmuhu kal ibili wal nag jur gi nga xam ne gii euh, dañu koy lekk maanaam daggan nañ ñu lekk leen lu mel ni gileem ak aw nag ay nag ak ay xar ak bëy ak di jur gi ñu ñu may rek noonu di ko lekk ne na ñooñu moom seenam saw du sobe laa yaduru ne seenam saw moom du sobe wala asaabal badan aw seeb doonte taq ma ci sa yére wala ci saw yaram itam su boobaa dooru sobe du la yàqal sam jàpp wala sam julli waaw kon sawam giléem du sobe lu laab la ay sawam nag itam lu laab la waaye bëy xar seenam saw lu laab la ak yeneen jur lépp loo xam ne daal may nañ lu maanaam ñu mën a lekk aw yàppam kon ñaari tomb yooyu rek lañuy mën a xam ci euh, wàllu sawam jur gi lan mooy ci seen atte kon daal am na jur goo xam ne gi seenam saw daa sobe mooy yéenu dut lekk waaye jur gi nuy lekk moom seenam saw dafa laab ñoom yooyu laaj moom la fi sëriñ Mbay Jaañ indi woon yal nañ ci yàlla doole defal taw bi ak jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ذاك يودا وهو ذاك يودا لا وهو يودا فتاوى